gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant Serigne Touba xaadimu rasulillahi di jaajëfal ak Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina di ñaanal Serigne Touba Cheikh mu Mountakha sunu borom guddal aw fanam te wéral ko ba li mu fas yéene liggéeyal Cheikhul Khadim ci ëttub lislaam bi mu àggale ko ci sagom te ànd koo bokki taalibeem yëpp noonu lañ koy ñaanale Serigne Amdi Fall Modou Mbenda mi xalifab Cheikh Ibrahima Fall sunu borom guddal aw fanam te wéral ko ba li mu fas yéenee liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall mu àggale ko sagoom te def ko ni mu ko bëggee ci barke borom Touba jotaay bii nag ñu ngi koy amal fii ci Baye Fall gi janatul maxwa di kër Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ñi koy amal mooy ñun waa daaira fondation Ahfadu Cheikh Ibrahima Fall li taawuni bil himmati wal irada ci njiital Serigne Pape Ahmadou Diop ak mbooleem waa fondation bi yëpp ci teewaayub Serigne làmp Mbakke moom Serigne Cheikh Astou ak euh, Serigne Moustapha Mahmoudan ak mbooleem waa Axfaadu bi yëpp li ñu fi tax a daje nag mooy bis bu am solo boo xamante si ni dañoo jotoon ndigal ci Serigne Amdi Fall Modou Mbenda muy fas yéene jëmbat fii ci baay Fall gi ay garab yoo xam ni garab yu ama am solo lay doon yu ama am njëriñ lay doon ngir roy ca Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ni sunu boroom dogal na mu njëkk koo def ci dëkkub Serigne Touba bi te defaloon ko Cheikhul Khadim kenn ku ne gis na njëriñ li ak yitte ji nga xam ni sëñ Abdou Lahad defoon defoon na ko ci euh, liy njëriñal jëmbët jëmbët ay garab nag kenn ku ci nekk xam na njariñ li ndax lu lu baax la lu am njëriñ ay yooni yooni yoon ndax dana baax ci askan wi dana baax itam ci ci ci ñi nga xam ni ñoo ñoo ñoo dëkkee ci gox bi ba tax na ñu fas yéene koo jëfee ni mu ko waxee mooy des na jëmbat ay garab ci kër Cheikh Ibrahima Fall gi ak mbooleem kër yi wër kër Cheikh Ibrahima Fall di njabootu Cheikh Ibrahima Fall des na ko def itam ci penc mii nga xam ni mooy pencum Cheikh Ibrahima Fall mi danañ ko def li wër tëli bi góos ak droite ci wet gu nekk fas nañu yéene daal li nga xam ni moom la moom Touba Cheikh Mamadou Mountakha jox ndigal Serigne di Fall muy sàmm warmaay dëkk bi ak ñàkk ko moom yii de cee bokk muy mboolem luy ay njariñ rek daa bokk ci sàmm warmaay dëkk bi moo tax nu fas yéenee futtiku takk sunu laxasaay ngir jëfal Serigne Touba liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall ndax euh, njariñ mi ngi tàmbalee ci képp kuy jëmbat nga bàyyi xel ne àdduna fu mu mën a àgg rek li ngay def mën na fa àgg ndax lii ab tàmbali la li doon suñu yéene mooy def ko ci Touba gépp ndax Serigne Touba xaadimu rasulillahi daa ñaanoon ci dëkkam bii ne doon dëkkub sàkkukaay xam-xam doon dëkkub njariñ te yii da cee bokk mooy lépp luy njariñ rek jëmmul Serigne Touba Cheikhul Khadim ba tax na fu mu nekk rek buñ yóotoo sunub loxo mën naa yomb lool ci ñu indi ko fi li tax fondation bii taxaw nag yooyu yii da cee bokk ak yu ni mel yu baree baree baree bari mooy lii ab tàmbali la nu fas ko yéenee tàmbaleek ak sunu digganteeg sëriñ bi tey ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala nu àggale ko ba àggale ko fu kawe sunu njort ci barkeb Cheikhul Khadim mooy lii nga xamante si ni woote nañ ko noo ngi sàkku ci mbokki taalibe yi nga xam ne noo ngi dégg ak fu ci waay mën a nekk mu jàppale ñu jàppale gi mooy yitte ji mooy ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala nu àggale ko ak sunu sago ni ko sëriñ bëggee ñu defee ko ni képp koo xam ne yàlla dogal na nga dëkkee ci gox bii te mën koo teewe noo ngi ci sàkku sa teewaay muy mag muy ndaw muy góor wala muy jigéen noo koy sàkku ci mbooleem dëkkandoo yi di ci invité itam waa daaira Jazbul Murid ñi nga xam ne euh, ñu nag bo ñu nag ñoo bokk ab liggéey muy fas yéene liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi leen ci woo bu baax a baax di ci woo daayira alali Cheikh Ibrahima Fall ak mbooleem daayira boo xam ni yaa ngi yaakaar Cheikh Ibrahima Fall ak foo mën a nekk di ci woo mbooleem sëti Cheikh Ibrahima Fall itam rawatina waa axfaadu Cheikh Ibrahima Fall góor ak jigéen mag ak ndaw ndax ba ni sos fondation bi kat danoo waxoon ni ndigal lu Serigne Touba jox Cheikh Ibrahima Fall fasañ ci yéenee bay sunu waar te yii daa bokk ca ndigal yooyee mooy saa yu Serigne Touba noppee ca lam doon def rek Cheikh Ibrahima Fall am na ndigalal barkeelu ca moo tax ñu war jotaay bi yàlla na yàlla faj aajo yëpp barkeb Cheikhul Khadim woote bi nag ñu ngi koy ñu ngi koy def ci samedi bi ñu jëm mu doon le 12 août incha allahu rabbi fii ci Baye Fall gi janatul maxwa jërëjëfati bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sayidina wulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yi ñuy teewlu yëpp si turu jawriñu Cheikh Ibra Fall ji di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di jottali ab nuyoo ak siyaar yu bàyyi ko si moom jëm si jëwriñam ji Cheikh Modou Mountakha ñu ko ñaanal yàlla sama borom yàggal ko lool te wéral ko yéene ji mu am si liggéey Sëñ Tuubaa bii mottali ko ba def si lu kawe njortam te ànd koog taalibe yépp noonu nit la ñuy jottalee ab nuyoo akub ziar mu jëm si njabootug Sëñ Tuubaa gi di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal fan wu gudd ak wér. Euh, di jot lim mu jëm si njabootuk Cheikh Fall gi nga xam ne njabootuk boppam la te mu ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne mooy bàyyi ko saa su ne si sëñ Tuubaa di si fi ñoom waaye di jottali nag ay cant ak i ngërëm ak i ñaan mu jëm si njabootuk boppam gii nga xam ne ñoo toog fii si sunu kanam muy sutaat yi nga xam ne ñoom noo ànd booloo boole seen yéene boole seen i pexe xam ne benn jubluwaay rek lañ am genn bëgg rek lañ am muy jëfe ndigal yi nga xam ne mi ngi bàyyi ko ci jëwriñu Cheikh Fall ji wala mi ngi jaar si bàyyi ko ci sëñ Touba jëm ci jëwriñu Cheikh Fall ji ñu ànd kook moom noonu lañ ko jaayanteeg woon ak moom noonu lañ ko diggee woon ak moom ndax ba yàlla dogalee seenum xel àgg si xam ne danoo war a booloo te booloo gi suñ borom moo ko def ndax moo leen boole ñoom sakkuwunu ko mu boole leen askan boole leen deret waaye suñu borom dale dafa defaat geneen tawféex muy boole nu pas-pas boole nu ak bëgg akub jubluwaay ñun ñëpp ñu am jenn yitte rek muy doon ay taalibe sax si liggéeyal sëriñ bi la nga xam ne moom la ñu moom lu mu nu digal nu def ko te bañ a jaar si lenn lu mu tere loolee nag saa borom defal ñu si tawféex ba yàlla dogal ñu uh, laxasoo ba doon génn buum ñëw jël buum nga nag jébbal ko ki nga xam ne. mooy jëw ñuy Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ di Fall mu sëñ du Mbenda jaayante ak moom it ne ndigal loo xam ne bàyyikoo na si moom bu egsee si ñoom daan nañ ko jëfee te it seen yitte mooy waxtu wu nu xamee ndigal loo xam ne mën nañ koo dàkk mu dajeeg bëggu sëriñ bi fa seen yéene sax sa loolee ba am si ngërëmul sëriñ bi ndax seenub yëngut ak seenub dal lépp danoo am yéene delloo ko ki nga xam ne moo ko moom muy seen maam Cheikh Ibrahima Fall te kii ko fi nekkal di sëriñ Amdi Fall yàlla na fi yàgg loolu te wér noonu yi taxawaay boobu nag ba yàlla dogalee ñu sosu ba léegi si taxawaay boobu rek lañ ne ñëw nañ fi ay yoon si loo xam ne sëriñ bi seere na ko ñëw sëriñ bi nangul leen waxtu wu ne lanu indi bu dee pas-pas la bu dee ak jaayante la bu dee addiya la lépp rek ñu ñëw jébbal ko sëriñ bi sëriñ bi nangul leen ko sant leen gërëm leen ñaanal leen ba ñu ñu dem nag ba jàpp ni ah, seen xel jàpp ni war na noo mën a def nag loo xam ne luy mandargaal pas-pas boobu la te awale ko si jëf joo xam ne ji euh, jëf ju sax dàkk la mm, te lu sunu borom digle nag Serigne tubaat santaane ko nu fàttaliku bu baax euh, taxawaay yoo xam ne daana ko am jëm si wàll woowu euh, kenn ku ne dégg na sëriñ bi sëñ Basiiru Mbàkke mu sëñ Abdu Xaadir bi muy nettali garab googu nga xam ne sëñ Touba jëmbatoon na ko di ko suuxat ak satalaam gu tedd ga ba àgg ba garab gi màgg ba am ker ba mu di fa toog si si di kerlu sa garab ga euh, loolu di màndarga moo xamante ni bii mu am solo la jëm si li nuy bëgg a wax euh, sëriñ Abdou Fataat fàttali na léegi euh, yitte ak taxawaay boo xam ne Cheikh Abdou Lahad yàlla nañu ko yàlla fayal amoon na ko si liggéey bu mel nii waaye yemut si moom sëriñ Saliou Mbacké dafay mel ne projet reboisement bi gën a rëy moom moom moo ko amaloon gannaaw ba nga xam ne suñu borom jox na ko xel xelkom dañu dindi woon garab ya fa ne mu defaat fa loo xam ne jéggi na dayoo euh, si li nu mës a dégg si àdduna yàlla dogal nag si jamono jii nga xam ne Cheikh Ahmadou Mountakha moo doon xaar sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul santaane woon bu yàggut dara rek njabootu Cheikh gi ak murit yëpp nu jëmbat ay garab lu wër si corniche bi ba nu taxawu ko dibéer ji nga xam ne moom la ñu génn euh, ñu jëm nag si euh, taxawaay boo xam ne bii moom ñoom ñii la ko suñu borom jagleel mooy ñii di sëtaati maam Cheikh Ibrahima Fall te ñi nga xam ne dañ si sëtoo si ndey sëtoo si si baay ak ñi nga xam ne ñëpp rek njabootuk sëñ tubaa gi si bokk ak njabootuk uh, ñi ñi sëriñ tubaa defar ñoom ñëpp rek àndandoo xam ne noo bokk ak bëgg noo bokk lu ñuy sàkku noo bokk nun koy sàkkoo nu amoon pas-pasum nag ñoom it daal di jëmbat nag ay garab lii nga xam ne moo wër pencub maam Cheikh Ibra mii si jannatu waa ba si biir kër gi ba si yoon wii nga xam ne moom lañ doon liggéey muy tali bi bàyyi ko kër maam Cheikh Ibra dem ba sa foofee nuy wax euh, route nationale bi si hôpitalu Ndiaye euh, ak it kër yi nga xam ne njabootu Cheikh Ibra Fall gi ñoom lañ ko jox nu nu nu yilif ko te ñu uuf penc mi kër gu si nekk it ñu wut ab lim boo xam ne bii danañ ko fa def si anam yoo xam ne dana méngoo la nga xam ne noonu lañ ko bëggee loolu yi nag di liggéey bu yaatu boo xam ne bii wax nañ ni àgg na si lu toll junni mbaa junni yu teg. si ay garab yoo xam ne bëgg nañ koo jëmbat kon junni ak juróom-ñaar téeméer kon loolu du liggéey bu ndaw ah, waaye nag ñoom am nañ yitte ak pas-pasub taxawu liggéey boobu fu ñu si war a jaar jaar nañ fa luñ si war a sàkku ak lépp luñ si war a taxawu taxawu nañ ko ba agsi si wax war see jublu nag sëriñ bi tànnaloon leen eh, gaaw bii nu jëm di fukki fan ak ñaar si weeru août muy le 12 août ñu war koo tàmbali nag fii jëmmal ko fii si tàmbalee ko fii si ëttu maam Cheikh Ibrahima Fall bi ah, jóge fi nag topp yoon wi ba àgg sa tali ba su ko defee ak wet yi ñu ko war a jëmmal yëpp ñu def ko fa ñu sëriñ bi nag di wax ne ñoom ñii nga xam ne ñoo koy taxawu am nañ am nañ ndigal si moom si taxawu ko sëriñ bi jëf ji daje na ak mbégteem daje ak la ko gënal mi ngi sàkku nag si mbooleem koo xam ne kii sa yaakaar génnut maam Cheikh Ibrahima Fall nga fekk si leen ci liggéey boobu te ànd saak ñoom te lépp lu luñ sa soxla si ak jàppale ñu jàppale leen sa te xam ni ndigal la lu bàyyi ko si Cheikh Ibrahima jëm si ñoom mu di yëpp nag sëriñ bi wax ne moom day mi ngi ko ànd ak ñoom fa si nee naa toog fii si janatu Mahwa si kër maam Cheikh Ibrahima gi ànd ak ñoom liggéey boobu yi ba mu àgg ñu teew fi kanamam mu ñaanal leen ñu delluwaat di xaaraat ndigal loolu tax nag mu ngi sàkku si mbooleem képp koo xamante ni kii daal sa yaakaar génnul Sëriñ Tuubaa ak Cheikh mi ngi lay woo nga ñëw ànd ak njaboot gii nga xam ne njabootu boppam lañ ci liggéey bu màgg bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéenee amal euh, samedi le 12 août 2023 euh, ñu doore ko fii si Jannatu Mahwa liggéey bi nag ñi ci war a jokkool ñëpp jokkoon nañ ci ak ñoom te loolu lépp it gaaral nañ ko sëriñ bi ba sëriñ bi xam lépp ndax ñi nga xam ne ñooy waa euh, service eaux fore jokkoon nañu ak capitaine Diop mi nga xam ne moo ko jiite te nekk fii si Mbacké ba capitaine Diop jokkoon na ak i ak ak ak i jëwriñam ñi nga xam ne ñoo nekk Njaareem ak Thiès ba Ndakaaru ba ñoom am nañ yéene ñoom jiitu si fi si ajjuma ji fa si yéene def trouaison bi mooy ñu ñu ànd ak njaboot gi ñu gas euh, pax yi nga xam ne si la ñuy def garab yi euh, def sa lañ sa war a def su ko defee bu ñu xëyee si euh, gaawu ba rek bu nu ñëwee nag dañuy daldi jublu si di ko jëmbat ñoom it am lu ñu sàkku si taxawaay murit yi dañ ko sàkk woon sa corniche ba rek ndax jëmbat garab dafa am aw yoon te yàlla defal na leen ci ñoom tawféex ñu saytu ko jàng ko ba xam li si li mu aajowoo lépp nag ñuy bëgg kenn bañ a jël ak garab di dem di ko jëmbatal boppam lu dul nga xaar ba nu wan la yoon wi wan la na ko war a defee su ko defee boo ko boo ko jëmbatee yàlla mën naa def lañ sa séentu lépp nu am ko euh, ñi nga xam ne it ñoom la nu woo si bis bi muy seen mbokki taalibe yi nga xam ne danoo bokk ak ñoom liggéey maam Cheikh Fall bi xam naa li si ta li si jiitu mooy waa Jësbul Murit bi nga xam ne moo lëkkale seti maam Cheikh Ibrahima Fall yi te ñoom ñu bokk ab liggéey bokk tool bi di si bayandoo am si ak déggoo ak ku yëg ñoom it sëriñ baa ngi sàkku ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak ñoom si liggéey bii ba ñu am ko te xam ne ndam li lenn rek la Cheikh Rafal moo ko am war nag ñëpp ñu ànd ak moom yeneen kuréel yëpp nag yi aju si kër maam Cheikh Ibrahima te nga xam ne ñoom ndigal rek la déglu ñoom sëriñ bi nee na kenn ku si ne day mel ne jot nga ndigalul nag wet goo si mën a jàppe nag wet goo si mën a jàppe si sayir ak si baatin si lépp loo xam ne yitte woon nañ ko aaje woon na ko su ko defee ju jàpp si ndax li mu soxla dafa bari euh, ndox mi nga xam ne war na see jiitu incha allahu ajjuma ndax pax mu nu gas war nañ saa def ndox mu neex mu wàcc fanaan sa ba bu bu bët setee ndox ma wàcc nu mën saa jëmbat bu nu jëmbatee ba noppit ndox mu neex lañu koy daal di arrosé si saa si te diggante boobu ba ba mu am ay fan faw ndox mu neex lañ koy lañ koy arrosé ndax loolu mooy digle yi nga xam ne ñoom agent eaux et forêt yi digle yooyu lan nu jox loolu lépp nag aaja na ak jàppale ñi nga xam ne am nañ ay citerne wala ñu am ay mbànd yoo xam ne mën nañ see fàggu ndox mu neex ak kër yi nga xam ne ñoo uuf tali bi te nga xam ne bu garab yi màggee ñoo ëpp luñ si jariñu ñoom ñëpp nag kenn ku si nekk na nga sa mën a tabbee nga nga nga nga tabbi sa ñuy sàkkoor kuy ñëw ajjuma nga indaale ak ak ak ak baramine wala pik ndax mooy jumtukaay yi ñu yittewoo si ajjuma ji bu nu xëyee dañuy natt pax yi su ko defee pax mu ñu natt rek marqué ko daal koy gas kon ñu ngi sàkku si murit yépp nag kuy ñëw na nga indaale jumtuwaay yooyee euh, wàllum ndox mi wax naa ko euh, euh, ku mën a duy ab citerne teg si mbedd tëli bi ndox mu neex nga teg ko fi waxtu wu ñu soxlaa dem root roose ba mu tooy su ko defee loolu mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy tënk gi si si liggéey bi eh, bu jàlleet toppatoo ba nga xam ne wa aajo woon nag si muy ñu di ko roose ñaari fan wala ñetti fan yu ne si eh, ndox mu neex loolu it ñuy sàkku si bërëb yi nga xam ne danoo wër danoo jege eh, mën naa jàppandi lool kenn ku si nekk la jege sa ba kër nga fexe def ko muy sa yitte nga toppatoo ko ba yàlla dogal mu màgg mel na mu war a mel garab yi nag wax nañ ni yi si ëpp ay garabu meññeef la yoo xam ne dañuy meññi euh, meññi doom yoo xam ne bu màggee incha allah mënees na koo jariñoo loolu nag tawféex la joo xam ne suñu borom defal na leen ko si liggéey bi ñuy ñaan si barke sëñ Touba ak Cheikh Ibra ak seen barke ñoom ñi nga xam ne ñoo ko taxawu yàlla na borom def ñu fekkee meññeefu garab yooyee fekkee keru garab yooyee ba ba jariñoo ko lu yàgg yàgg yàgg ba seeni doom ak seeni sët yépp fekk ko fi ñu fekke ko ñu ngi koy ñaan ci doole Sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall ñoom nag wax nañ ne ñu ngi fas ci liggéey bii yàlla suñu borom bu leen ko nangulee mu defal leen ko muy fan mu gudd ak wér sëriñam di Fall mi nga xam ne mooy jëwriñu maam Cheikh Fall ak Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak mboolem njabootug Sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall waaw ah, nun nag ñuy ñaanit ñoom ñii koy taxawu te te te te di ñoo xam ne ñu am yitte ñu amuk dogu lañ ñu am pëstéef lañ ndax yoon wi loolu dong fi ne Pastef rek a fi ne waaw ñuy ñaanit yéete jii ngeen am ci liggéey seen maam bii yàlla leen suñu borom kàttanal ba fu ngeen bëgg mu àgg fa rek yàlla na ko weesu barkeb sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla sama borom def yeneen yu bëree bari topp si yoo xam ne euh, du ngeen ko sax foog waaye nag lépp nag pas-pas ak dogu rek moo koy indi te suñu borom def na ko si yéen ndax li war a nekk si yéen lépp a ngi si kon li ñu leen di ñaanal mooy ngeen gudd fan na ngeen wér ndax doomi ñay moom ñaanal ko mu dund rek bu dundee dina rëy kon nag li ñu leen di ñaanal mooy ngeen dund mooy mooy ngeen wér mooy ngeen am kattan mooy ngeen am tawféex ba ba ba li ngeen yéenee def lépp ngeen man ko te defe ko nu mu leen soobee te lépp nag daje ak bëgguk sëriñ bi sëriñ bi nangul nu ko ñu ngi leen sant di leen gërëm di jégg lu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Bienvenue dans votre maison GP, Gabon Production, Académie Médan TV, les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.